waaye comme bokki taalibe yépp baaxoo nañ fu ñu déggee lu laal yoon wi dégg sunu kàddu ñu ñaanaat ñu ne nañ yëkkatiwaat sunu kàddu waaye dafay am loo xam ne dana jar tontu ak loo xam ne du jar tontu li nag mi ngi jëm ci e, sàcc bu feeñ li ma ko mën mooy sàcc bu feeñ mu di kàddu yi nga xam ne e, Moussa Diop yëkkati ne ko di directeur général bu e, senegal Dem Dikk xam nga xol lu ci ne faaw mu manifesté wu ci jëmm moom li ne ci xolam moo manifesté wu ci jëmmam te du ci xolam moom dong eh, yërëm naa ko trop yërëm ñi mel na ñoom ci sëriñ Touba mi ñu teg seen bët ak Touba gi ñu teg seen bët Touba kenn nattabliwut ne sëriñ Touba benn buur du taxaw ne maak ko ko dogal kenn du taxaw ne maa ko gorol borom bi suba subhanahu wa taala moo ko ko jagleel sëriñ Touba ñëw sancal ko boppam daw li ne ci nit ñi ak li ne ci loxo nit ñi moo taxoon mu def ko. waxoon na ne boppam ne li tax ma sanc dëkk bii di Touba mooy daw li ne ci loxo yi nit ñi ak daw nit ñi bi ma sañcee Touba it fekkuma fi dara lu weesu huit ndew pël ak saawas nag bi ma fi toogee tuuti nag ñaar ma fekk ndokk ba sëñ Touba waxoon loolu démb tey sa ko ñëw ñaar ñi ma fekk mooy kuy wut yàlla kese ak koo xam ne àdduna lay wut ba noppi mbubboo yàlla loolu nag feeñ na ndax loolu moo tax ma jiital ci samay wax ne sàcc bu feeñ bu fekkente ni bii euh, élection yi nga xam ne moo fi jaar ci la ñuy wax ne mësuñoo gañe Touba ba tax ne ñoom ñu ne liñ def Touba dañ koy rëccu ba àgg ci autoroute bi nga xam ne eh, maa ngi jaajëfal bu baax sëriñ Amsatu Jaxate mu sëriñ Cheikh Jaxate eh, yàgg naa wax ci conférence bu yàgg ne di di giñ ci yàlla ne autoroute bi bu fekkoonte ne bi intérêt bi daa nekk Fuuta Fuuta lañ koy def ndokk ba mu ko waxee te Moussa Diop waxagutoon lii da ngeen seetaan vidéo bi incha allah loolu eh, bokk yi autoroute du Sénégal loolu kenn nattabliwut ne moom la autoroute Sénégal la bëggoon a nax murit yi moo taxoon ñu dox ilaa Touba man ñi ma gën a yërëm mooy politiciens yi nekk Touba doon doon politique autoroute bi ak kero ouverture autoroute bi kaddu yi nga xam ne jiboon na fa kenn ku ci nekk naan gis ngeen li président def Touba autoroute ilaa Touba tey nag ñoo waxal seen bopp ne autoroute bi turu Touba bi bu ñu ko mënoon a dindi waxuma la dindi autorite bi moom yombut ndax autoroute bi benn xaalisu Sénégal bor la bu buñ gàddul Sénégal bor la buñ gàddu ci turu Sénégal mu jaar si Touba donte Fuuta la jëm ca xam nañ loolu waaye jaar gi mu jaar si Touba oto yi koy fay oto yi jaar si Touba ñoo koy fay. kon bor bi waa Touba dañ cee participer euh, du président moo ñu ko defal lebal ñu ko ci xaalisam wala moo ñu ko defal ci xaalisam du Moussa Diop moo ko def wala kenn moo ko def xaalisu Sénégal la bu ñu gàddul bor Sénégal Sénégal di ko fay oto yi jóge Touba di dem Dakar yi jóge dakaar di ñëw Touba ku fi jaar faaw nga fay loolu ngay fay mooy fay autoroute bi kon moom mënu ci autoroute bi dara xas na ba pare autoroute de Sénégal la. donte xam nañ boobu mais baat boobu mu doon utilisé moom ndakate li leen gën a naqari ci àdduna mooy baatub ilaa Touba bi moo tax mu waxal boppam ne su mënoon a jël gradeur daf koy daj dajjati def ko autoroute ilaa Fouta waaye jërut mu di ko def sensel tour bi rek ne autoroute ilaa Fouta la su ko defee bàyyi intérêt bi Sénégal moom ko moo gën di ko dajji yow nag sàcc bu feeñ nga waaye na nga xam ne Serigne Touba mun Muntaxa yàlla na fi yàlla yàggal gën a dolli ak wéram ndokk bam ñu gënee xam tey gën ñoo xam démb gën ñoo xam lii ñëw bu ëllëgee ku fii ñëw na la fi sëñ tubaa rek indi ndax faneen foo jaar fu dut ci sëñ tubaa la ngay wut doo ko am ndokk ba mu ñu waxee loolu gën naa firnde wu tey ji ne lu ngeen fi mën a wut ci wutu leen ko ci sëñ tubaa du ngeen ko am murid nag bu leen jàpp ne dañ leen a bañ bu leen jàpp ne dañ leen a contre seen digganteeg sëñ tubaa na leer gis nga nit ki bu digganteem ak sëñ tubaa leeree lu mu wuti ci dëkk bi am ko waaye bu sa digganteeg sëñ tubaa lëndëmee loo fi mën a doo ko am ndax yëfi ci loxol sëñ nekk sëñ tubaa nee na suñ borom jox na ma njariñul àdduna ak loolu laaxal aax laaxira jox ma it njariñul nit ñi lépp a ngi ci sama loxo lépp loo xam ne loolu laa ci bëgg it ku yàlla bind mënutee moo am kon Moussa Diop ak ñi nga àndal nga xamante ne bii turu Touba bi rek moo leen naqari ci seenu dund ba tax ngeen na jàpp ne seen carte électeur yii leen Touba xañ defatu leen démocratie jàpp ne Touba am nañ droit farak kee contre kee li ngeen di war jàpp mooy ku farut ak yéen daal waru leen ko defal dara kon loolu tegtaloo nañ ci na yéen du ngeen gouvernement bu Sénégal gouvernement benn parti rek ngeen doon boo xam ne ku leen financé ngeen ku leen jàppale financé ko ku leen jàppale wul ngeen takk biiram ndakate lii moo indi jafe am ci réew mi Moussa Diop rëbbub yàlla ñeel la ji dal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.